piis bi muy kii nga xam ne mooy Thione Seck di légende ci musique sénégalaise di bàyyi ci Wally mën nañ wax ne samedi di bàyyi ci yow di yaay ci yow lan nga yëg yow tey en tant que artiste musicien Pape Diouf xol bu naqari xol bu tiis ndax euh, sunu papa la ñun ñëpp duñ ko sax sàllalu papa Thione lañ koy tuddee lañ ko daan woowee donc tey Sénégal moo perte musique africaine moo perte muy sunu papa Thione Ballago Seck ñu am ci naqar nag ndax xajoon na fi ba ci kanam pour wéttalu ñu donc ci dëggoom ci sincérité am ci gëmmoon yàllaam ak aussi nangoo liggéeyam kon ñu ngi koy ñaanal fële mu jëm yàlla na ko fa suruñ borom teeru yonent bi teeru ko sëriñ Tuubaa teeru ko fa jërëjëf